Souleymane sénégalais yu bari dinañu rafetlu jàmm appel au dialogue le camp de Ousmane Sonko jàpp nañu ne c'est parce que le rapport de force n'est pas en votre faveur que vous acceptez le dialogue oui. que que xaaral rek que le président desserre le tout Ousmane Sonko dañ ko fi condamné pour corruption de la jeunesse dans le cadre de l'affaire Adji Sarr du dugalaat ko fi ci beneen dossier euh, atteinte à la cohésion de l'État tegal ko sept sept chefs d'inculpation mu ñëw le les les les les juridictions arrêtées des décisions le concernant DGE bañ ko bañ ko bañ ko bañ ko appliquer ñu génne ko ci élection bi ndax mënu leen woon njëkkee. waaw léegi ndax mënul leen j'ai envie de vous dire. ndax mënul ak li ngay bon disposition yi ngay wax ni ndax boo leen ko njëkkee woon est-ce que du ñu def et duñu économiser quatre ans de la vie de notre nation pendant lesquels on a tous souffert de 2021 à 2024 réew mi yàqu en bi dugg ñu salfaañe valeurs yi salfaañe institution yi yàq sax élan bi man deuxième mandat Macky Sall jëloon Maïmouna on ne pas faire l'économie de tout ça bi Macky falo ba mu jógee jam ñaajo nu installé ko. bi mu faluwaatee. bi mu faluwaatee ñu fa installé ko laa ne ko laa ne ko da yaakaar ne jàmm ñëw na pare nañ ci ma ne ko pare bu ñu ci xeex bi dafay commencé. gis nga ñii lu leen urne yi ma mayu. ruu bi lañ koy nangoo ci yow duñu la may jàmm mars avril mais ñu indi affaire Petro-Tim ab Aliou Sall jiiñ ko boobu ba léegi jàmm amul nanguwuñu ñu liggéey ci jàmm ñun suñu kenke na xamuñu fu mu ñu jaar xamuñu fu mu ñu jaar problème sur problème problème sur problème ba tey jii may wax ak yow waa